bien ñu fekk leen fii fii tey place de l'Indépendance euh, ngeen koy dund tey malgré interdiction ministre de l'intérieur mën nañu xam tey nag ngeen dundee bés bi. waaw bés dañ koy dund ci kontante di ko dund ci sant yàlla bu baax quoi parce que tey jii ñëpp a ngi ñaan fekkee at at at bii di ñëw euh, te te defe naa ñun fekkee nañ at bi quoi instant di ñaan at bi ñu duggu at bi nga xam ne mooy at bu bees bi yàlla defal nu si xéewal yàlla defal ñu ci li nga xam ne bëgg nañ ko suñu suñu suñu life quoi loolu la ñuy ñaan xam nga. ñëw tam di ko feete fii di di kontaan ci ci bis bi daal ma ne sama gaayan bi kom comme tey jii defuñu dara te te comme que at bu bees la buñ ko feetee gàlle quoi nañ génn dem dund koog doomu aadama yi quoi ma ne ko nañ nañ dem ville doxantu xam nga xool temps bi quoi yaa ma gën a xam. non fête bi moom macha allah quoi kontaan nañ xam euh, autant nag dañ ñëw fii sànni pétalo yooyu quoi malgré léegi na li xew ci dëkk yi. man sûrement moo tax léegi ñu tere ñu loolu quoi mais néanmoins ñoo ngi sant yàlla gannaaw fekkee nañ ko ci daaru xeetal ak wér ak lépp di ñaan yàlla yàlla may ñu at bii di ñëw mu doon at bu gën at bu jàll ko sama gars yi waa Boston nag waa New Jersey gars yi maa ngi leen di béggee quoi na mën naa leen bu baax. Euh, li ñu tere nii nag du dara lu dul kaaraange yokk kaaraange ñii ñi gis ngeen li xewoon niis si benn fête si fet de la bu mag. la gars yi profité def fa benn attentat bu rëy bu lay plus de quatre-vingts personnes donc lii kaaraange nit ñi rek la autorité bi bëgg a yokk terewul nag nit ñi mën mën nañ toog seen kër yor seen euh, pétard di ko taal di bég parce que jour wu mbégte la pour ñëpp lii du dara tàmm nañ di fi ñëw at bu nekk daan nañ fekk fête d'artiste bu mag fii mais gis nga malgré interdiction bi ñii ñaa ngi fii di fo di souhaiter bonne année donc loolu lu rëy la si ñun vraiment ñu ngi si kontaan di leen remercier yéen waa Sénégal parce que xam naa leen bu baax danaa faral di liggéey ak seen nit vraiment di leen féliciter aussi seen liggéey seen liggéey rafet na lool. amul xumbal amul dara mais na daal. yàlla sans mais sans feu d'artifice quoi. ma ni sans feu d'artifice. amul dara mais baax na lii baax na trop. jàmm la ñuy bëgg. vraiment daaw dañu koo tere reen ñu tere ñu ko mais nag euh, sant yàlla waaw lu lu lu borom réew mi bëgg moom ñun mënuñ ci dara mais lu ci mënti am rek ñun ñu ngi jaayante. yàlla yàlla def Sénégal jëm kanam ñu dugg ci 2017 bi mu doon at mu neex at mu bëri xéewal at mu bëri jàmm. yi fi daal jaar nag yooyu moo dàq bu ren bi parce que chaque année damay ñëw mais xam naa ne ren moom dafa wéet waaw yi doon am année yi passé daal yooyu moo dàq. mais gisu leen ni tamit bi li mu leen tere est-ce que du mooy li ci yéen. waaw li mu ñu tere moom mooy li gën ñun mais fii moom moom ni mu daa mel bu njëkkoon léegi melatul noonu. alhamdulilah gis nañ lu mu mel nii sant nañ ko maanaam je suis Koldoua. foofu laa dëkk ñëw naa fii nag vraiment fii laa liggéey léegi vraiment content naa trop mais moo gën a gaspillage bi quoi waaw jàmm moom jàmm la ñaan yàlla jàmm yokku rek. mais ministre bi moo tere loolu moo tax. yàqul ci affaire bi waaw yàqul dara ci affaire looloo gën nañ def loolu rek yàqul dara. Euh, mais kan ngay souhaité joyeuses heureuses années ndax gis nañ la sa diggante xës nga ne nga ko rab du dem ah. <laughs> mais xanaa ak 2017 bi rab bi dina dem. Euh, rab bi day dem waaw commencé naa dem sax instant nii waaw parce que ñëpp ñëpp ñëw nañ pour pour pour pour gunge rab bi mu dem waaw moo tax ñu ñëw fii pour gunge rab bi ànd ak moom dem. waaw di sant yàlla daal bu baax xam nga di bëggee di bëggee waa Sénégal waaw amuñu seen fay waaw di ñaan yàlla rek at bii di ñëw ñu gën a yokk ba yëg ko waaw sant yàlla rek bu baax. xanaa di kontaan rek di bëggee ba gaa mi di leen bëggee sama gaay yi tiikee siri di leen bëggee ñoom yi ba ah, di kontaan bu baax xam nga rek Sénégal ñoom ñoo bokk ndey baay xam nga yëpp benn la rek xam nga mais c'est bon quoi fii moo gisee lépp nice oui ah, gëj naa gaami trop gaami quoi gaami nee nañ 2017 mooy kii set numéro set dafa doon benn at bu nice quoi yaa jàmme nag ci paye quoi xam nga na dem nice quoi kon gëm ko ba moo nangu ne gagné nañ ko na dem ci tekk ak njëkk ak teraanga quoi. comme que nu gars yi di waxee rek Gambia has decided Mr Jammeh please step down in peace you know step down in peace so we can have the peace smiling coast of Africa man euh, tey moom xam ma bés bi bés bu rëy la si si nit ñi mooy 31 décembre ñu ngi dugg si at bu bees bi ñu ngi si profité di féliciter population sénégalaise bi yëpp di leen euh, souhaiter vraiment une bonne heureuse at boo xam ne dina ànd ak euh, yokkute yoonu yokkute. politicien la donc euh, naa souhaité ñi ñu yoonu yokkute mu mu mu dal suñu kaw euh, xewel yi nga xam ne mu ngi yegg si Sénégal ren vraiment mu war a baawaan si 2017 bi 2017 nekk aussi année jàmm ñu ngi dugg si année boo xam ne am na ay risques yoo xam ñu ngi koy wax si suñu diggante ak Gambie te Gambie ñu nag ñoom même peuple bi la ñu ngi ñaan vraiment guerre bañ am Yaya Jammeh mën a may ñii ñi ñii euh, ñu fal muy Barrow mu jox ko pouvoir bi le 19 janvier incha allah. samay xarit samay àndu jàmm yi am Macky Sall yal na réew mi jëm gën a kanam. waaw maa ngi leen di souhaiter bonne et heureuse année di ko souhaiter sama borom kër di ko souhaiter samay sœur samay frère di ko souhaiter waa àddina bi yëpp di leen souhaiter bonne et heureuse année. année 2017 bi yàlla na dàq 2016 bi. te rek lañ ko dundee yàlla ma ñu fekkee ko mu nekk at mu mbégte atu bànneex atu xaalis yàlla ma ñu gudd fan mu fekk koy ati at daal. Euh, sama waa jéeg ma naan nga may ko benn freestyle bu ndaw yow hip hop moo ñu beeral xam duñ ci seeral ku ñu topp teeral ku sa xol di bon neeral dañuy indi flow rim teg di la neeral tim leen ni asamaan doon sa niir bu lay keeral nga jooy ni liir ñu jàngal hip hop doon la feeral nga sigg ñu fop doon sa jant bi lay leeral hip hop musique gu dëgg la non non duñ ko seeral li ñuy teg di foo père ak mère liñ ci bëgg teeral suñu sound bu ko asaloo da nga ko war a seeral ku si jàkkaarloog mbalax maan bu la neexee geral rab nañ ba rab ba rab booy gën la bëri jàpp gàddamaa bi yuuxu sap ah ñëw si géej booy soo ñu toppee di nga lap non li ñuy rab na nga tëj sa beek ni nga non kenn mënuñu dab rab day dem eh, <laughs>